asalaamaaleykum gars yi nuyu naa leen daleen ak jàmm ci Sen Sport 221 transfert la ñu koy doree rasin Colly l'international sénégalais dafa dal di signer ci club bi nga xamné moy Istanbul Sport nek ci Super League bu Turki signé na fa nak ñetti ati contrat momnak nak ap latéral gauche la xam ngeen ne ñu bari eh, yag nañu ko gis ci li nga xamante moy équipe nationale da nañ ko fi wa ci ay jamono voilà mom nak jamono bi mu ngi am 27 ans kon nekkagul mag ba fi ñi waxé voilà mom Racine mu ngi won nak ci Portugal fa la joggé dal di dem signé fofu nga xamné moy ci Turki ci club bobu ñi wax voilà euh, Istanbul Sport Istanbul Sport ñetti ati contrat la fa dal di signé benen transfert bo xamné momit matna moy ki di pap njaga yad moom nak ñi di FC met dañ ko able voilà fële nga xamné moy ci kevili roi Métropole moy club bi nga xamné ñoo signé pap Ousmane saxo barki dembu voilà ñoo ñoo daldi di nga maam ab ki nga xamanteni moy pap njaga yad pap njaga yad nak niki daw ki dañ ko able won fofu nga xamanteni moy ci 3S voilà fofu lañ ko able won ren ji ñu dal ko able fële nga xamanteni moy ci ca voilà Quevilly euh, kon fofu la wara fekk ci ki nga xamanteni moy pap Pape Ousmane Sakho loolu transfert la bo xamné mat na ci bëccëgu tay bilé benen latéral gauche bo xamanteni dal dinay dem moy ki di Abdallah Birane Ndour Birane mom yakana gay faté guñu ko fan rek xam ngeen ne ci match yi nga xam Sénégal am mu daal di fi def ngandi match mom Abdoulaye Ndour bu yagul dara jamono bi daal dina joggé Soso googu mu nekkoon Soso la joggé daal di dem fele nga moy ci Anava genga ca genga la dal di signé wala loolu transfert la bo xam mat na ci bëccëgu tay bile gëna loolu dinañ wax ci ki nga xamante moy Ismaïla Sarr mom nak tay ji jeunam premier match am ak euh, Olympique Marseille nga xam mom bu mu fa signé ak léegi daanaka ci ñaari fan képp lay tollu tay ji ñoom dañ doon jouer ci li nga xamante moy pré-saison wala voilà match xaritoo la ñoom nag ñoo ci am ndam benn bal ci dara Ismaïla Sarr ak Pape Gueye yëpp dañoo titulaire joué 90 minutes voilà bi yëpp la ñu bit bi xew ci jogante ga nag Pape moo ko dugal Pape Gueye moo marqué bit bi nga xam ne moo may Olympique de Marseille li nga xamante ne mooy victoire ci jogante googule comme ni la ko waxee Ismaïla Sarr moom it dal ci wane boppam donte ne marqué wul waaye joué na match mu njëkk kon ngeen ko xamee ki nga xamante mooy Neymar jéem a liggéeyaat bu baax a baax voilà nekk li nga xamante ni mooy meilleur joueur du monde moom Neymar loolu nag objectif la boo xam ne xam naa ne liggéey bu rëy rëy la laaj ndax moom nag xanaa bu ko ci blessure yi bàyyee ndax moom kat ay blessure nag ko mën a sonal donte ne xarañ na lool mën naa football moom Neymar bi lee jamono bi nag Europe moom mën nañu wax ne xëj na euh, voilà ku ne war nga mën a takkaat sa ngem ndax ñaar ñoo ko lëmbee woon ñëpp jógee nañu fi mooy Lionel Andrés Messi ak Cristiano Ronaldo ñoom ñaar ñëpp tasaaroo nañu kële mu ngi ci Amérique kële mu ngi ci Asie kon fi mu ne nii mën nañu wax ne Europe kon fi mu ne nii libre na ci gaay su ko defee ñu sëmbaxloo ku ci man sa morom wane ko voilà Neymar nag objectif bi nga xam ne daal dina koy teg mooy nekk meilleur joueur du monde loolu nag xam naa ne liggéey bi léegi lay tàmbali ndax saison baa nga ñëw door léegi Arda Güler moom muy gone gi nga xam ne Real dañ ko signé bu yàggul dara ca Turquie nga xam ne moom ba mu ñëwee léegi jiyagul benn match ñaari match yu Real jiyagum fubalu ko ndax dafa tombeek mu am li nga xamante ne mooy ay métti yu mu doon yëg ci tànk bi kayiti xibaar biral na ne ñoo ngi séentu mu joué match mu njëkk ci samedi bi la muy classico bi war a dox diggante Real Madrid ak ñii di muy match boo xamante ni nag na dina wuuteeg yi passé ndax kat gaay bu ñuy xool taay ay xaaji na ci xam ne moom daanaka replay bi la ñuy seetaan ko tegaatee waaye direct bi moom bëri ñoo xam ne ci nelaw la leen di fekk mais bii moom marax lay doon wala guddi gi du sori bokk ndax vingt et une daal euh, la ñuy war a li nga xamante mooy jogante googu kon dina jàppand ci ñu bëri ñu mën ko seetaat waaye gone jii di Arda ñu ngi seentu ne nañu mu jouer ci match boobule xañ na kon fi ne kon tane na voilà noonu la ko kay xibaar yi daal di biralee voilà yi kon loolu fesandi woon ci tënkum